leyki keresnaten fof ke sikulana cafum allahn goto ino fofi ana ñun ñëpp xam nañ ko ñu nekk ginnaaw raay yëpp xam nañ kan mooy aji saar ñu séeréer yu baax yëpp paay ñu dem xaw ma dañ leen a jënd xaw ma dañ leen a fay yéen tey ngeen xam baaxi aji saar tey la aji saar baax aji saar ñaata séeréer la teg diir tas seeni sëy Adji Sarr mu ngeeg ay vidéo yoo xam ne ay vidéo séeréer ñoo xam ne dañuy ñibbi mu giri leen def leen lu ne ñu vidéo leen téye leen di ko di ko santaas ñu xam ko nii ndax man duma waxatu li may wax xam naa ko bu baax a baax a baax a li may wax maa ko xam nii ndax ñi nekk ci suuf yéen ñi ànd ak moom ñëpp xam nañ leen kañ la séeréer ñàkkoon jom kañ la séeréer meloon ni sakaay ñoomin kar xaw ma dañ laa muur xaw am looy nëbb yéen ngeen mën kan ngeen mën a nax aji sooy wax yaa ndijil jare o di o weta kayit liira jariran a refa nga Ousmane no wiin a ɓeedong xa taxun xa xewu lan moo tax ay mbokki jàmbur jël la nëbb la lu tax ñu jël la dugal la fi la dugal yow aji xale bu bon bii Adji Raby Sarr nga ne fële yow xam nga ne tooñ nga ñu violé ñun ñuy traité violé di taa di di di live xale yu ñu violé xale yu am ñetti at xale yu am ñeenti at xale yu soog ci ci ci tojegun sax si nen ginnaaw raay lañu dëkk aji diil bi setut diil bi ñi la ci jàppale setut te yow faamara faamara wa fane ganaale yaa wa fanaaga daale yaa mi faatu njaay ref um maag alaaji muusa diil fane ma te xat na fukki andaam daangaan ñàkk jom ba bëgg a dee demu leen liggéey ngeen di lambar lambari nekk ginnaaw raay di lambar lambari guddi di lambar lambari bëccëg ñi ànd ak yéen ñépp nag wuyu yeeg bànd yi may wax man li jeexal sama xol bi semaine bi yëpp ñuy mobiliser séeréer yi na séeréer yi jóg su fekkee ne Adji séeréer la comme yéen bu leen ko def nii bu leen ko def nii bu leen ko def nii yow mi ko doon wax wa fane léegu na wofanaaga refna France moofna toka fotoyo layaye we ndimna aji ndim anga aji sar aji sar war an wara jang num doonin na ɗat mais anda ke num mbinorna goor maak wana refe ɗat refe ndigil refe ɗat nu mbar a mbin lakas ka refe na jang goor maak weeke andu naye wiin rooga def nu doona den maabnora den pour xar leynora den ka andu naye refe ndigil xanne refe ndigilo fe fo leen ko teg ah ba ca kilifa yu baax yépp ngeen di leen di waxloo xam nga ne soo leen waxoon payi lan lan mooy dëgg ak lan moo xew kenn du gétt ne mu leen di faral ni ngeen di yées aji yow dañ laa violé yow nga xeesal ba yàqu yow nga daal di diw noonu ba liis nga toog nga ne dañ laa violé mat na fukki yoon déedéet matul fukki yoon de waaye yow kon kenn violé violé wu la yow dangaa saraxe sa bopp yow kan nga topp me euh, us us xaw ma naka la tuddati maître kee def kanamam ni ki la xëtër wéyu bi bandi bi lii dafa triste dañ la yuus dinañ la utiliser ba seen xol bi sedd ñu génn la sànni semaine ba lañ dugal audio ñoomi neen ñoo ko def waaw aji na ko joolaa yi baal ma nga ma ma ngay sotti deret danga aji tuuti nga pour jaxase diggante joolaa ak séeréer dangaa tuuti aji tuuti nga si lool ne waa yow torop nke fiyo na cuune dëggantaanu ten refo onaga ñapa haalis a waro jalli comme ne o ñoomin ka antena o ñoomin ka nuurinana mo samusa jogi jom wara fo premiére o ñoomin tahe mo ñañaki jom na adna wo ar fanga toppale a toppale wala ma bama wara waro toon diil fo ne ɓete mos diil mo seemos mo soo gis kenn ci adduna kuy tappale di teg diil ba diil bar set amul benn diil bu set aji suñ la violé ngay wax dëgg niituloo yor bukk niitoo yor dara aji aji li ngay def mooy jàkkaarloo caméra bi ñu di la xool nga koy xool tubaab sooy wax ak moom ne sëg rek da ngay duul waxoo dëgg nit su nekkee ci dëgg da jël sa bët yi la xut nga doon waxal du ñu ay ngaaka du ñu ay dof ay psychologue a toog ay psychologue ñoo toog ñu xam dëgg ñoo toog ñu dem dëkk ba nag li ma gën a métti mooy ñu dem dëkk ba dajale paa yëpp dajale maire yëpp tegal ñu ko one hours une temps ñu leen di déglu ñu ne ay mbokki aji la yow faamara yaa ñàkk jom yow mi am sarak ngeen bokk benn baay mu teg tànkam fu mu ko waru teg teg nga war koo jël yëkkati ko sang ko ba mu set waaye yow man foo mës a gis fu ñu violé ñu ñu ko ah rey ñaata nit ñaata bakkan aji moo ñoo aji saa de dana ngonu keeke may wax nga génn di jaale seen famille yow dangaa waroon a nëbbatu ji de yow dangaa waroon a nëbbatu ji ñu ñëpp ginnaaw raay lañ dëkk ñàkk jom ba bëgg a dee foo leen gasal Ousmane Sonko rek dugg ngeen yéen doo leen seet yàlla ngeen gore yéen mënu leen a gore te xam ne ki ngeen di laal laalaake la tey lañ ko gën a bëgg noppalu leen noppal nit ñi noppalu leen mënoon ngeen a teg beneen diir ndax diir moom mos ta set diir bu set moom mosut a am tuumaal nit ki loolu doy ñaata bakkan ñaata nit senegal nekk ci stress gu dul jeex ñu jóge ci stress googu ah Papa Thione dem pareegul aji ay Alaaji Diouf mii nga xam ne dafa jëful non Alaaji Diouf man ba ma juddoo sama ndey sama baay ba léegi yàgg naa dégg sama maam naan ma am na ñoo xam ne seen feebar fañ yegg sa dee yeggu fa ndeket te yoo feebari Sonko fi mu yegg sa Alaaji Diouf yow sa dee moo fa yeggut yow lii moo lay bëgg a rey ndeysaan Alaaji yow dundatoo de